loolu moo tax ñuy ñaan responsable yi bu ñu ko ñaanee kilifay diine yi ba noppi nag ñëw ñaan ko kilifay àdduna bi nag bu dee ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi bu ñu nee asibiyaan rek bu ko defee adolescent yi bokkut ak nag ashabab ñi nga xam ne dem nañ ba am 17 ans 18 ans jëm kaw di dem nekk ci daara ju mag ji ñooñu dafa am nu ñu leen di saytoo xale wax naa ko démb xale bu amee ñeenti at ñetti at ñeenti at dëgg la am na lu xew ci àdduna bi bu dee ci ndaw ñi nga xam ne ci tubaab yi la njëkk a xewee ak naar yi americain yi li ñuy tuddee desin animé nga xam ne xale yu ndaw yuy tuuti yi trois ans quatre ans seen yaay yi waaw dessin animé yi ñu koy màggaale nag li ñu ci taatan li ñuy li li ñu ciy jële képp lañu ñuy mën a xam di ko màggaale lolé it ñu bayé xel ba bu xalé bi amé juroomi at juroom ben at nga koy ci di ko diko di waaw ay mamam di fatali diko di yo xamni bala dem ci daara ja ca école ba dina fekk mu xam lu bari ci kër gi lolou mom parents yi la ñu koy ñaan buñ ci joggé ñu ñëw nak ci politique bi ak réew mi ak ñim ko sékkal responsabilité responsabilité la rek

amaa jëmm yi xew nag ma dellusi si ci ndaw ñi te ñu koy gis ci àdduna bi yëpp waaw makka rek nga ko dul gis lu mat a bàyyi xel la maanaam makka bu fa dee am yaakaar naa ni makka ak madina al munawwara ñaari dëkk yooyu makkatal mukarrama ak madina al munawwara yi xew ci àdduna bi foofu la gën a néew néew mu amu fa de. néew ma amul fa de ak it xale yi def événement am ci biir politique bi xale yi ci occasion wu di def naka su dul noona est-ce que seeni leader ñoo leen ko sant hmm? est-ce que seeni leader ñoo leen wax ni taalal yi fi jàmbur sàccal yi fi jàmbur dëgg la sàcc moom am na fu nekk màkk sax am na fa ndax asaariqu wa saariqatu waaye faqta'u aydiyahuma jazaan la yàlla wax loolu daa xewul fii rek Serigne Touba moo am loo xam ni ixtasani laahu bi ma lam yëkku nii wala yëkku ni li si waaye bikku ni moo tax buñ nee diw ray na itam du tax mu raylu ndax dafa am lu ma ko soppee dafa am lu kenn amul bu ñu nee diw sàcc na it du tax mu dagg loolu mu dagg loolu loxoom moom ko tedd ki foofu la yërmandeem tollu loolu moo tax li mu daj lépp ak fi mu jaar yépp ba mu ñëwee nag liñ ko doon def lépp mu baal ñépp waaw kenn jéemut topp tànkam waaye dafa jàngale bàyyi fi li mu jàngale mooy bon intention bonne parole et bonne action niyatul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul xayri wa mulazamatul xayri ànd conscience loolu la jàng léegi nag comme ñun dañoo lompañ suñu kam kàttan fi suñu niveau suñu dimension foofu la ñuy waaye ñu jéem c'est l'intention qui compte nanu jéem rek ndax dëgg la yàlla mooy baaxal mooy jubal gaa waaye Sëriñ Tuubaa dafa daan signé wasalaamu ala ni tabahal huda jàmm doonu lu ñuy ñaan ab dëkk la daam yoon wu fa jëm ba bëggee dem mosulaa jaar yoonu rimbax doo yegg loolu moo tax ñu ni bis bi mënuñu cee ñàkk a wax ndax xew-xew yi am ci politique beeg violence bi am dëgg la xale yi koy def sax dañoo minoritaire am na organisation boo xamante ni bi bu amee te képp kuy responsable te am capacité def dara ñu encourager ko appuyer ko bu ñu ko defoon rek fi mu toll li xew lépp lépp lépp ñoo ko teg suñu bopp ndax dañoo fekk yoon wi ne nii fu ne nu fay jaar dañu jaar ci yoon wi muy waa pouvoir waa opposition li ngay wax danga leen koy séddale waaw ndax ku dul yàlla yàlla rek moo dul juum njuumte yi day am collaborateurs yi chef bi mën naa nekk chef waaye alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla ne dama laa yónni def la xaatam nga complété yonent yi dafa daal di tànn itam dinañ la jàpp nañ la kii waaye yooyu yëpp Serigne Touba mi donn lépp nag moom xool leen yërmaane ji muy indi ndax ku tedd ki bañ ne nekkatu fi ñu yóbbu ko Touba ak léegi ndax dégg ngeen ñu reyante ci ak xilaafa ndax kenn mës na ko dégg te am na ginnaaw yonent bi am na kon bu nee am na lu kenn amul bul ci génne kenn ixtasani la wax laahu bi maa lam yëkku nii te walaa yëkkunu lii sa waaye bikku nii amul woon te duutu am li mu am moom illa yaxaadallaahu maa lam yëkku nii walaa yëkkunu abadan li mumkin gis ngeen tant que système colonial bii ñun ci lay ñuy gouverner suñu réew yii kenn mënu ko fee jëlee dama bëgg sama baat ca kaw ñu dégg ma faw complexe bi ñu jël ko teg ko fee xam ne am nañ koo xamante ni bi moo ni amara ni rabbi bi an musarriha bi an usarriha bi an na ni malazun wa mafzun fa man araada alxayra fii kilta yi dare ni fal yelus bii fekkoon daf koo wax rek yam ci nga ne waaw waaye dafa def lu tuur ànd ak ñoom fu nekk ñu def ko lu nekk jéemal ko lu nekk luñ ko jéemal tey réussir ñu balaa ëllëg ñu fanaanoo li ko war a jéemal ca ëllëg sa toujours nee na day jàpp ni lii ñëw suba mooy gën a metti lu tey loo waral ci bisu samedi mu ne axriji adaka sarmadan min rahmatik waleen taqam minhum bi abqa niqmatik te bi ñu koy mettre au poto fu mu toll mi ngi taalif du caagee na day bàyyi ba jël plume bi ak encre bi rek dede fu mu toll même biñ ko taxawlee diko mettre au poteau mi ngi talif ilayka an hayta masiri ya ahad lay wax yalla sama démarche ci yow rek la jëm waye na waxu tali ma la yarahu man jahad defal nga ma lo xamanteni bi koy wedd diko tek beut jaar foofu yépp ak ñoom ba ni ma leen ko waxee léegi rek ñëw fi mu wax na lu leer wax na ni sunu der bu ñuul bi kontul li ci xol bi ak li ci bopp bi moo compte c'est la compréhension qui compte fa lay si yuy jibu sawadul jismi safahatal fata wa su al fahmi mu wax na ko ñu hmm? war a ñemee benn doctrine bu bees ñun Sénégal ci ay réformes ñu war a ñemee la réalisme africain pensée boo xamante ne bi ci un africain un sénégalais un saint de Dieu ci la jógee def ko réceptacle sukkandiku ci pourquoi pas li kulli shay'in ajal humuril insan ya'muru bi tadrij dund ay étape la étape bu nekk ak la mu laaj nit ku nekk am nga ñetti étape yoo xam ne bu ci ne mën nga caa wuy ji sa borom première étape boo deuxième étape bi bu ñëwee boo demul troisième étape bi mënoo rëcc. imaanan wa islaman wa ihsaanan koko programme la ci vérité absolue mom nak la ko yalla jox maddaliyal xaqul mu mubinul xaqa wa bil xiyaaral ulama arqa la wax ba nekkee savant ba noppi nga koy soog soxla ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul nga am ko ci réew mi di def sunu yi nii def melni dëndul bàyyi xel dee baax mawt pouvoir pouvoir Yalla rek il am lan la wax mulku ilahiya gadan yanhu dararun Lizati. gis nga ñi la waxon waxoon tubaab ak tubaab ak ci po ah. ci mentalité la mulku ilahiya gadan Lizati. <laughs> le souverain du seigneur de mon Dieu Ma m'appartiendra demain ah, te boobu bo bosam dafa spécial Beaucoup de souverains yii déedéet parce que bi daf ni yàllaahu yaa waasihu yaa zal mulki wahabtali muxjila ahlil mulki nee ko yàlla yow mi nekk fépp yow mi moom souveraineté yow mi moom souverain Yama ma jox loo xamante ni bi dafay gàcceel ñi nga jox ñëpp ñi nga jox nguuru àdduna ñëpp man bi nga ma jox dafa koo gàcceel waaw ni ko na ma bay na lesi xaddahaasu ndax ñoom bi nga leen jox dañ ciy xiiroo ko ŋaayoo ko xëccoo ko rayante ko turante dërët bu bay na maa husu ma ahasu par rapport ak man li nga ma jox waaw basi wutu niyatul xayri wa xawlul xayri waaw jazaan wa sawaban waaw moo tax comme le bien de tous les temps

xool li nga war a def ci journée bi te doo ziare ji Touba dellu amul samay wax di moo ko wax chakar nii inta jamihi jundihi mos xasadu ziarati min hindihi night and day loolu loolu mooy li yéeme malaaka li mu bëgg a def gisoo avion du dañ naan avion bi dafa tardé mu yéeg ba ca kaw mu ra mu rattrapé heure <laughs> xaa loolu malaaka kooku dàq loolu moo tax waa politique bi oh li ci kanam mooy dara lii li xew da koo nuuru rek day nuuru dara waaye du dara dëgg la dañuy bañ may codé waaye faw may codé waaw ndax itam nag <laughs> xel moom li muy jariñ mooy ñu ne bi baat bi nangam la tudd hmm, nga xool ba xam baat bi lan la mën a jariñ ak lan lay jur bu du loolu xel du liggéey waaye bu ñu leen leeralee lépp dangay ngay xel <laughs> am na ñoo xam ne dañu may dàkkaat fi mu naan xel ba mu leer ma luy loolu xel ba mu leer li may wax day leer naññi ku mu leerul ci sa bopp yaa yaa war a xoolaat sa bopp li ma wax dafay leer gis nga muy yi woo Idrissa Seck woo dama ne woon du ma tuddi tur mais mënu ma leen ñàkk ba ñu tudd Macky Idrissa Sonko Oh, Khalifa ñom ñep dal day am nañ ñi ci waaw ñi ci da ngay parce que tout le gis dina am mim, wala mu am waaw wala fa ñi ci leen di ci ma leen di invité ci le réalisme africain ci Khadimia, ndax man ma devenir gis ngeen gouverneur général ba ngeen daan biñu ñu amagul indépendance sirru balaa jël suñ tool xama général Kara rek lay wax gouverneur général dal khadimia. Ya. te mi ngi sunu kanam te buma wax ji sapé man man amna sama constitution bu bess mi nga ma denc gis nga seen yi ñi def buñ ko bayiwu <laughs> Sénégal ci na bari ci kanam waaw ndax man ñaar fukat ak ñaar lay nango am donte ma ngi waji boucler 70 yi itam lank lay def ben 2 ans lay nango ndax leader la duma serigne lima man serigne manuko limay wax serigne duko wax limay def serigne duko def tey man la neex ma solo ni amin beugona ma duggal ci geneen col maniko baye ma tay rek ma don al mbourou al mbourou fiñ tolu rew mi def nañ ne am nañ problème mais problème amagul moy buñu ñu limay wax lolu mi ngi ci kanam il faut ay réforme am soxlu wuñu fi ay élection élection yi nañ ko soppi def ko élection yi bu naree am nañu ko soppi def ko référendum laaj Sénégal yi ba xam d'accord nañ ci projet de société ku tedd ki le réalisme africain wala déet est-ce que d'accord nañ ci constitution bi ñu soppi ko wala déet ah soxna si yéen ah yéen di wax dëgg yàlla yéen yéen yéen de bëgguma leen wax dara waaye daal yéen ñaar ñii lay wax bëgguma leen wax dara de waaye wax dëgg yàlla ndax di ngeen a bàyyi seen lépp ñëw fii moo tax waaye xam nga yéen malaaka ngeen yor yéen xam nga bu ñuy wax liberté rek kër bu bàyyi leen ko <laughs> démocratie ñu bàyyi ko gaañ yi ñoom mag yéen liberté nañ leen ko bàyyi parce que métier malaaka ngeen yor bu c'est très dangereux waaw métier malaaka la ngeen yor yéen ak médecin yi métier malaka ngeen yor motax man toujours dama len di respecter motax ñi ñi ëpp ci yeen dañuy mëna gënt lolou kay modou mbacké len koy wax hmm. ñun dal soxlu wuñu élection fiñ toll ndax bala nga ni naam ne fa nañu fexé ba xalé yi dal ñu fexé ba wax ak Ousmane Sonko fexé ba wax ak euh, Macky mim ko sikkal ak collaborateur yi Macky té nak xadamtu batilan bi xaqin fa zahab la ko tedd ki wax ca wakkaana xaqan wali ilaahi kasa saq yihi dahaq gis nga dëgg moom bi mu fekkee lu dul dëgg rek martub dëgg la jël na ko mu ne tasaat nanu ko nangu dëggug yàlla gi moom la ko jox Serigne Touba la ko jox ñun dëgg ji mënu jox day soppeeku ndax nee na nu jibril neenu inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu soppi jotee noy soppil sunu bop li nu bëgg soppi ñun moy constitution bi wa li nu bëgg soppi moy turu président de la république muy tuddu gouverneur du sénégal wala nang wala gouverneur de la nation wala nangam ak nang ñun ay réforme lañu ñu bëgg année prochaine soxlu wu ñuy élection buñ démé bané élection day am nak nañu nang ma bok amul jangul tubabat ak du 81 ak léegi day bëgg a yàgg waaw bayyana lil alim wal xabiru tabyina man tadbiruhu tadbiru waaw discernement mu am solo xam ki mën ak ki mënul bari na luy sooxee ci état mooy da ngay jox ab liggéey ko <laughs> te loolu dëgg tax mbir yi eh mbir yi daal wax dëgg yàlla buñ bëggee mu soppeeku te aw yoon nañ ci boole religieux yi dëgg rek wax man nag fas na d'accord dialog accord na lol ñoom ñu ngi commencé dialog ci après midi bi Cheikh Mbacké sama dom moma fo ra téwa waye dialog dafa am lu ko gëna bax lol dinañ ko wajal te penku lañ koy défé waaw dañu collégial bo xamanteni bi lu luy nuru assise international ñu fay def bu ñu ci liñuy def jël le réalisme africain expliquer leen ko ba mu nañ intellectuel moom boo ko joxee document bu ko liiree léegi nag bu ñu nee li fi tubaab yi indi woon képp ca la ñuy nekk ñun suñu jaan wàcc waaye bu boobaa de man buur bu xonq cooy laay doon Touba Choukouri waaw ak sama autonomie ak samay soldat am ay gendarme am ay gémi lépp laay am bu ñëwee li may wax man du fi musaam <laughs> bu boobaa nag la problème di lii daal laa ni woon faw ma jàllale ko bu ko defee nag lu waay bëgg laaj nga ko laaj. waaw bisimilah. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. dañoo benn laaj bu laaj. Hmm. bu li nga fi wax di xew ci hmm. am na benn actualité bu xew biir Touba. Touba lu fa xew. gis ni euh, am na koo xamante dañu wax ni dafa sàpp ay xale. Hmm. Gitu, lu tolok ñaar fukk ak juróom ñaar loolu Lolo, la concerne bul eggale ndax duma ci tontu loolu moom la concerne man dama bëgg luy jariñ askan wi fii nu toll waaye koo xamante bi kuy ku ñu day éduquer mbaa ñu ne day jàngale defu njaaxu moom ñu ma koy laaj fii ma ciy wax duma def loolu non non je ne le ferai pas man li def mooy fii réew mi toll nan la def ba réew mi jag man loolu ma intéressé xale yi ay pépinière xale yu ndaw yi nañu leen tàmbali yar ci kër yi wax naa ko ci début bi man kenn mënu maa dugal ci njaaxum di ma laaj fi jàmbur bu ma ko nangu bu doon loolu xanaa kon sonko lii sonko laa ma ñëw bu doon loolu kon kon xanaa bu kon ma tàmbalee ci sonko yam ci moom Ousmane Sonko <laughs> bu loolu ma tàmbali bu doon wax waxi jàmbur man mën a tàmbalee ci moom yam ci moom mën na maa ci moom lu bari lu baree bare bari ndax am na ku ne ma fekk na ko ci barab bu ku tedd ki muy jàng si ndiit yi am na ku ne ma bëgguma wax ci yëfi jàmbur xoola nañu wax rek wax dëgg yàlla xale yi nan la ñu mën a def ba ñuy mm-hmm. bañ ba enseignement yi éducation yi ñu dugal ci li Serigne Touba di wax njàngaleem Serigne Touba mm-hmm. xale yi màggale waaye ay problème yi diw damm na kii ak tuuti ma tudd sax baat boo xam ne kenn waru ko tudd ci yéen nii baat xam nga man des fois Baye fa laay doon. Mm-hmm. <laughs> laajal beneen non benn. benn question. waaw déedéet yow bàyyi leen ñu laaj bu leen neex bu kenn baaree kenn bul fàttali ne dañoo bàyyi seen liggéey ñëw fii bàyyi leen ma ak ñoom rek waaw dama leen di satisfaire. <laughs> waaw hmm. dañu dégg hmm. jamono bi waaw lan ngay ñaari question mooy wax nga ne hmm. ndax bu élection amee samp sa ndënd nekk candidat sant ma mam ndënd de ah, non non <laughs> loolu expression bu ngeen di waaw waaw déedéet dama ni man damaa am plan boo xamante ni bii Mamadou <laughs> dama am plan tati mujj ba ci yàgg ma yokk ci ñaar dem dama soppiwuma ko sax waaye dama ko yokk pour mu nekk ciseau waaw ma ni tati mujj waaye jéegom mujj waaw ñaari plan yooyu dama ko am maanaam ñett baax na juróom baax na léegi man xam nga du ma dem doon président de la république waaye doon candidat am na lu tax nga doon ko. waaye du caa génne nag lii tax nga doon ko da koy daal di wax ci bi nga ko déclaré. dama ne man bu ñu deful li may wax. bu fekkee élection day am nañu nangu ma doon candidat est-ce nangu nañu nangu laa wax de ah, <laughs> waaye sampantewu ma ci ndënd ak ak bi waaw bàyyi ko mu yeggale. ci muy bàyyi ñi ñu duppee ay otage politique ak président Macky Sall ñu bokk loolu la ñu wax ne bu ñu ko defoon dinañu mën a bokk ci dialogue bi tey boo xam di nga ko wax solution jàmm amaat Sénégal lan lay doon ci bi mënut a indi jàmm. <laughs> déet bàyyi ko journaliste la <laughs> teyu ko di teyu ko di bul fàtte ne teyu ko bi mënut a indi jàmm xam nga lu tax. Hmm. damaa jàpp ni dinañ fa nekk naan yàlla nee na yonent bi nee na Serigne Touba nee na góoma nii dinañ fa nekk di ko wax ah mbaa boobu habitué wuñ ko du dëgg te loolu boo nee jullit nga te doo njëkkee loolu la ngay def du sotti du jag wala xëyri yi loolu moom duma ma ci juum jërëjëf Mbacke waaw wax nga dañ a satisfaire projet de société bi nga xam ne moom ngay proposé li nga xam ne mooy sénégalais yi. Mm-hmm. muy Al Khadimiyyah. Mm-hmm. Euh, Mbacké euh, bi. Mm-hmm. ndax yaakaar nga ne. Euh, dëgg benn. ndax projet bi day doon projet boo xamante ne nii. dafay nekk exclusivité ci nga xam ne ñooy murit ñi. ñi bokk ci yoon murit. ku wax projet de société wax ne loolu du yem rek. ci benn hmm. pàcc waaye ñu bëri nañ cee bokk. Hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yeneen tarixa yi war cee bokk. Hmm. ban démarche nga nar a am ci ñoom. ba ñu mën a adopté lool ak aussi tamit inconvénient wala sax. barrière yi yi mu mën a am. ci sénégalais yi. ndax wax nga ko léegi léegi dañoo am benn système colonial bu fi nekk. yàgg na lan mooy doon pexe bi ko fi jëlee. pour projet boobu mën a am. ndaxte comme ni nga ko expliqué ci njëlbeen bi. yéen bi li mu génnee àdduna. Mhm. nguuram ñu bëri contesté nañ ko te ba am na ay baxal yu bëri yu si rot. Mhm. bu ñu jëlee modèle lu euh, Cheikh. Cheikh euh, Khadim. Mhm. macha allah boobu ba léegi. njaboot gi. dafa gën a booloo. Euh, dañoo gën a dañoo gën a nekk benn. te musul am. benn coow. lan mooy doon pexe bi dëgg. waaw xam nga léegi wax nga lu am solo. gis nga Serigne Touba moom rassembleur la. gis nga li ñuy wax tarixa murid tarixa tijaan tarixa xaadiriya nangam ak nangam Serigne Touba pour wane ne rassembleur la moo tax deuxième exil bi gànnaar bi ko yonent bi di indil al wirdul maxuus wird yëpp ca nekk comprendre wird yëpp ca nekk waaw fi ñu toll al maxuus boo ko boo ko kii rek boo ko boo ko wirdee rek wird nga wirdu murit wird nga wirdu tijaan bu xaadir wird yëpp chazeli yëpp loolu moo tax fi ñu toll nii comme li ma junjoon ci benn collégial boo xamante ni bii loolu maanaam këru diine bu nekk xalifa ba kilifa ga day yabal ko ko ci représenté comprendre waaw bu ko defee ñu càmbat maanaam li réalisme africain document bi ñëpp am ko ku nekk joxe ci sa xalaat maanaam loolu bi li ñu ci jublu mooy maddalil husna wa maddali zayat la ko tedd ki wax man lii di yaqulu haka xabla maddiyat maanaam yàlla li mu jox ñi mu élire ñëpp wa muy muy le secret de ses noms li ko tàmbalee allah ba sabuur waaye nag Sëriñ Tuubaa nee na plus ba ko ko jox

te bàyyi élection yi dàq ko def référendum parce que ñun euh, changement yi ñu bëgg daal lu bari moo war a changer ci réew mi waaw dañoo war a gëm suñu bopp waaw loolu Bougane di wax naan gëm boppam déedéet dañuy waxin la sax ci moom waaye Bougane moom Serigne Touba la gëm waaw gis nga fi ñu toll nii te itam gis nga kii di Macky dégg naa ko mu tudd projet de société Serigne Touba ma déglu fa dégg naa mu prononce ko ci làmmiñ kii di Idrissa Seck dégg naa muy wax waxi ay bayit waaw waaw Mamadou Niang di ma dégg xam na ni li ma wax dégg nee naa leen sonk wax nañ ma ni day jàng xisnul abraar suba ngoon man duñu ma wax kenn kuy wax waxi ku tedd ki te du ma la respecté na xasanaati at sayyiaati man yu ñaaw yi damay fexe nuñ ko rafetale loolu ku tedd ki di wax boromam naan ko samay sayyiaat at nga ko def muy ay xasanaat boppam taxul muy wax ñun ñoo tax muy wax buy wax naan astafirullah min samhi wa min basari wa min zamiri wa min fikri wa min kalimi ñun ñoo tax muy wax waaw soowee nanu nu ne bu nu bëgg te soowee nag bu nu bëgg te bu nu bëgg te soowee jaanam wàcc na ku tedd ki soowee nanu nu ne te bul tëb rek ne xadd fàkk kabala dafa njëkkee shafa saqima nafal alima xaadal xadima illa najay sokk ni xadd fàkk kabala xadd wa tafaddala fa duru walla wana fu jeex complexe bi nañ ko jël tek ko fele lolou la nañ ko jël tek ko jang na saran lang la rek al ilmu nurun le savoir est une lumière waaw man nga ja man na jaar par la science man na ñew direct mu bacharatan man ko nek man buma waxe ñu defen dama jang te jango ma xila wala kha <laughs> hmm savoir mais li mbugul rek doyul nan la mel ma na ma mbir mi dafa weex wala dafa ñuul wala dafa bëla hmm? waaye dañu defe nañ ne problème am na wallahi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom laay jël seede bu ñu defee ne problème am na problème amagul mooy ñu ni ma li nga bëgg du fi musa am bu boobaa ku bëgg problème di nga doyal wasalaam oh. waaw non non bàyyi leen rek mais man ngi soog a chauffé bi waaw. Hmm. Hmm. waaye xam nga bi man maa ko jëmale ci parent ya ak kilifay parent ya nee naa la famille bu nekk famille bu nekk ci Sénégal rek. am nga kilifa ak diine kilifa ak diine yi nañu wax ak parents yi parents yi wax ak xale yi à partir de la maison mais banditisme nag yàgg na fi càdduna àdduna bi man a yàq alxayru wa lu baax ak lu baaxu dafay yàgg nii fi guddeeg bëccëg yàgg waaw ak lu tàng ak lu sedd maanaam leen lu nekk am na contraire lu tax yàlla di bind àjjana bind sawara lu tax muy bind la araaf nga xam ne du àjjana du sawara bu biyee mu ne nux nux bu biyee mu ne war war ah ñun ñett lañu ñett lañu kenn ki day dem aljana kenn ki du dem aljana du dem sawara ki ci des day dem sawara waaw nak tedd ki ni li kulli man bi yaa taallaqa naja min dir dunia wu fi yow najah nan ko wuyu comme ko ko wuyu mucc bu ëllëgee bu fekkon ay njaaxum rek ci nga nekkon bu ñeké malaayika bu ñeké serigne touba la yaakaaroon mucc wa ñu am ko ci rew mi du tee ku amul sëriñ sëriñ ba baax na mi ngi dara jaam ak yëpp waaye kii da cee bokkul jutta bi mu mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mu jëla jëy seen waa amal bokkul fenn ci benn rang bu ñu tegoon pouvoir am daraja ñi yàlla jox dara ji ñëpp ñu boole leen teg ci balance mu wat leen kon bokku ci il di distingué ñu am ko ci suñu réew mi di dugg ci caaxaan yi am jàppal bàyyi nangam ak nangam waaye waxoon naa leen bayit bi mu wax léegi parce que loolu mi ngi jóge ci tubaab bi shattana ma bayna lazi qad hazu waaw loolu lañ ciy nekk de parce que pouvoir bi iblis moo ko coiffé maanaam pouvoir colonial iblis ko coiffé ni nga ko bëggee rek ak ni nga koy nang nga koy réussir amul loolu yéen bokk bëlewuñ ci yàlla te lillaahi mulku samaawaati wal ard ku ko fi am moo la ko jox moo ko joxoon Souleymane jox ko moo ko joxoon Daw Daoud baayam hmm? ñu cumulé ñaari pouvoir spirituellement temporellement fii nag bu ñu xefee foofu lañu jëm fii bu ñu xefee ñu xefee ñoom nguur gi dana koy jël ba noppi annulé ko duutu duutu existé indi nguur bu bees tàq duutu nga boo xam ne du doon nguur du doon nguur liggéey lay doon liggéey liggéey waaw waaw chef d'état bi sax mën na tudd la gardien wala <laughs> waaw mën na tudd la gardien mën na tudd alxadim xadim le serviteur nangam ak i waaye président nangam pour asaaw yi moom président yi moom kuréel bu nekk am na président président moom du turu dara xanaa bu Macky président de la république waaye <laughs> turu président moom kuréel boo gis rek am na président xale yi étudiants yi mais étudiants yi maa ngi leen di sant surtout mouvement bi nga xam ne Momadou ñoom Ali ak ñoom di ñoo ko jiite parce que wax nañ ma loo xam ni daal dal na sama xel ci étudiant waaw ñoom fas yéene nañu rencontrer étudiants yi ci Sénégal yëpp ci vacances yi waaw pour ñu xool violence nan la mën a génnee ci université yi loolu moom xam nga lu kii maa loolu benn étudiant daaw ko xalaat ñëw nañu fi ba wax ceeb bi. may la ma ma tëj may la ma ma tëj. déet bul tëj déet da naan may la ma ma wax man bëgguma tëj ah. waaw may waaw waxal déedéet may la tabarakallah waaw. waaw loolu bàyyi bàyyi mais comme c'est du passé da nga may bay ma wax li ci bëgg xam nga loolu wessul légui nak dafa am fuñu ñu toll waaw ma ngi lay sante nak ndax yow fatali nga ma lo xamanteni bi bii faaw ma wax ak ñoom mag moy waaw légui xaaral xaaral xaaral ma tontu ko mom dama kontaan ci mom mi parce que yeen ñëpp la kontaan ga waye dafa laal fo xamni dafa laal fuma ma intéressé ñoom mag li ñu wara def wax ministre de l'intérieur parce que ñoom am nañ carte sécurité am nañ récépissé <laughs> légal nañu nañ leen wutal foo xam ni nañ leen récompenser ba ñu nekkee ci kaso bi man ma daan sonn ci mbaa ba bokk naa ci ñi doon sonn ci di leen fayal ay location hmm? waaw ba ci neuf yi mu jege na barki Demba Ndiaye waaye li taxoon ma ni la li taxoon bëgg moon a dellu ci gannaaw parce que dafa am ñoo xamante ni bii dafa am ñoo xamante ni bii ñoom ñoo taxawoon wax ak Macky ni ko faw ñu jëm si ci sama kaw ki ko njëkk a dafa am ko mu yabal ci benn sëriñ sëriñu lasraar pour mu laaj ko ndax suñu ma songee ndax réew mi dina yëngu fekk bi mu waxee Macky Macky daf ne ko ah loolu teen bu bëri na dugg cooy mu ne ko président kii bu ñu ko seetaanee nanga Macky nanga

waaw bu ñu leen mënatulee récompenser Ablaye Wade waxoon na ko fii fi nekkee. Mhm. ca maire jëm président. Mhm. ni li nga man ci ndaw ñi ñun mënuñu ko ñun jàpp tëj lan man na nga Macky hmm? Hmm? wax décembre bi premier ministre xaw ma wax ko ministre de l' waaw. mu ngoog léegi nag man yooyu yëpp parce que man yàlla dogal ma bëgg dafa metti mbaa dafa jafé waaw loolu tax may wañi sama at ni di wax ak yeen manam mm. man bëgguma lu yomb waaw tay kasso daf mm. ma neex de ngeen lima wax ca fan yele waaw man nek na fi Serigne Saliou nek fi ma nek Paris hmm borom daru sama rak nek fe mo talibi ñu dem japp 40 yóbbu leen Louga ñu def fa 6 mois 40 lañu won te sëñ Saliou ngi fi woon te ak ñaan la leen yónnee maanaam kaso doonul ñun lu nu nuy kii ñun ñëpp ñun ñëpp ci kaso bi lañu war a dee bu nu goree comprendre ñii ñoo ma umpale rek ñoo ma xamul ñoom mag yi ñi ñoo ma xamul waaw mais am na ñu ma xam boo demee ci sëñ Mountakha xam na ma nga dem ci sëñ Moustapha xam na ma ñaar ñooñu doon am beneen ñu ci des ñëpp sëñ Mamor mii ma waxal barki dem mu sëñ xam na ma kooku moom na ko ñëpp na ñëpp ñaanal sëñ Muntaxa na ñëpp ñaanal sëriñ sépp mais sëñ Mamor bu sëñ Murtala nañ ma ko beralalu ñaan mm-hmm. jàmbaar la jox ne boo leen teew ciy wax <laughs> non non non boo ciy wax fermement ci lam nekk la nekk avec constance ba noppi nag <laughs> dara nekk ca bopp ba waaw mm-hmm. loolu daal mm-hmm. moom sant naa leen journaliste nag bëggul ko ko jox xaalis waaye yéen ba ma jox leen xaalis. dernière question. dernière eh, bu leen waaye kaay eh, déedéet eh, kaay man maa man maa doyalul bàyyi leen leen. bismillah wax leen bismillah waaw ah nuyu woon nga ma léegi xaar nag muy nuyuwaat <laughs> waaw. Hmm. Hmm. yi waaw yi njëgaane. voilà amaguñu doctrine boo bu bees spécifique. Hmm. Euh, nga loolu waaw loolu la loolu wax naa ko sànq soxna si. moo tax ñuy proposé le réalisme africain dañoo jël mat la Matlabul Fawzayni lañu jël wut ci quelques vers waaw def ko mbànd waaw mbànd mi nag mbànd boo ko xasee du lu la neex sotti ci bu la neex sax def ci meew hmm. <laughs> bu ñu ko tëjee. ku ko seen nii day defe ne ndox a ci nekk ba balaa balaa moo xam ne meew a ci ne mu ubbi ko waaw moo tax fi ñu toll loolu lañ bëgg soxna si mooy yërmande ji maanaam Serigne Touba daf noo wane yërmande nu ne jàngaleel na ko nu ne léegi nag fippu rek moo ci des fippu tubaab yi moomu ñu nu Serigne Touba daf nu bu nu jàpp ni tubaab yi ñoo di ay bóor nee na au contraire ñooy baadoolo yi <laughs> Serigne Touba nu ko wax nee na ñooy nun <laughs> waaw parce que ñun ñoo gëm la vie de demain après la waaw kon kenn du sunu buur benn buur la nu am. Mm-hmm. rabbul izzati wal jabarut waaw. Mm-hmm. tabarakallah waaw da nga ne woon da ngay tëj looy tëjee. waaw waxal. non non man pare wu ma pare ngeen. waxal de ci bàyyi ko kii waxal. déedéet ma yaamu saa waxu. ñu ñaanal. waaw waaw kon léegi. yaa Cheikh Ahmadou Bamba. xaadim rasul noo nii ak sunu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp